yow da nga koo tegut fenn wa mawdiu ixtilaafihim fi l afdali min zeyni ya ixwaanu ma lam yaxsuli taazuru l asbaabi borom xam yi nag fi ñu wuutee ci sabab loo wala wàkkiir loo gën loolu bu fekkee sabab lu ko daa munta am maanaam tey bëggoon nga liggéey waaye amoo loo liggéey bëggoon ngaa liggéey amoo loo liggéey nga wakkiir lu ci yàlla fab mbir mi bàyyi kook sa borom amma in sabat bu fekkee nag sabab sa ma ngaa liggéey féebaroo dara jotu la dara doxul sa digganteek liggéey fa aw jabul aw awwala hmm, bu bu fekkee maanaam nag bu fekkee maanaam sabab si mënoo koo def maanaam mënoo liggéey amoo loo liggéey wala dangaa ngaa tawat fa awjabul awwala kon waral nañu nga wàkkilu man ngaa wàkkilu ci yàlla in lam yaltafit lil xalq bu fekkee ne nag ah waa kii Louga nag àndut ay njàmbat yu dul jeex foo toll di jàmbat nit ñi foo toll lëjal nit ñi foo toll sonal leen loolu dootu wakkilu wa suxti foo toll di mere mer mel ni sax da dem ba mere yàlla yàlla nag daal yàlla nag daal yàlla nag daal déedéet yooyu yëpp wàkkiiru du ànd ak loolu du ànd ak njàmbat wa bi tazabzubin ngay déng-déng nga xam ne sa xol du dal mukk wa bi tazabzubil xija sa xel du dal mukk du toog foo toll rek sa xel a ngi tiit nangam nangam ngir say bëgg-bëgg yu dul jeex ba noppi ne da ngaa wàkkiirlu déedéet wal asafi foo toll di am naqar mais loolu itam jotu bokkut ak wàkkiilu dara wàkkiilu ba noppi te foo toll yaa ngi jàmbat wàkkiilu ba noppi foo toll yaa ngi mer wàkkiilu ba noppi foo toll sa xel du dal déedéet loolu du wàkkiilu loolu moom leneen lañ koy tuddee waaye mënut tudd wàkkiilu wàkkiilu moom da koy def ba noppi sam xel dal nga bàyyi sa bopp sa borom doo tiit boo xëyoon amagoo loo lekk sax du tax nga tiit du tax sa xel nekk ci sonal kenn loola mooy bàyyi sa bopp ak yàlla wa in yakun multafitan bisi faqad taayana aljamcu lada ahli rachad bu fekkee nag yow munoo wàkkiirlu googu ñu digle nga xam ne doo jàmbat doo lëjal kenn doo sonal kenn munoo ko nga xam ne saa su ne yaa ngi bàyyi xel nit ñi kon mbar danga war a boole wàkkiirlu ak liggéey faqad ay al jama foofu danga war a boole bakk wàkkiirlu ak fàggu la daa ahli rashad xam-xam yu jub yëpp loolu la wax wa huwa firaaqu alqalbi minha littikaal maa mubasharatiha lil imtisaal mooy sa xol féex boo boolee ñaar yooyu sa xol féex nga boole ko ak di liggéey nag ngir jokk ak topp ndigalal sunu borom li mu digle ci ku wàkkiru moom moo digle jëf moo digle wàkkiru nga boole leen ñoom ñaar ñëpp li annahu amara bil firaari min sababil halaaki wa daraari ndax nee na yàlla moo digal daa doomu aadama yi ñu daw ci lépp lu leen di alal lépp luy alal sa bakkan mu leer la leen lii boo ko defee mu rey la yàlla def na nangeen ngeen ko daw di woote na nag damaa wàkkirlu ba tey lu mel ni feebar bii di wàlle nga ne man damaa wàkkirlu ba ragaluma ko li ci digle lépp sama yoon nekku ci sabab yañ ca wax asbaab yañ wax yépp ne nañ ko jëfandikoo nga weddi yépp ngir di woote naan man dama wakkilu ci yàlla loola ku koy def yaa ngi def loo xam ne wuute naag li yàlla digle wala tulqu bi aydikum ila tahluka yàlla ne bu leen sànni seen bopp ci alkade xam nga kenn du sànni sa bopp ci al sànni sa bopp ci alkode waxin la mooy luy alak nit lu ne gaynde gaa ngi nii taxaw nga xam ne boo egsee ci moom mu daal di lay rey léegi bu fekkee am ngay tànk te war a daw da ngaa war a daal di daw bàyyi ko waaye di ko won ak aw fit ak naan damay wàkkilu ci yàlla te xamoo baatin amoo leneen hmm? ñaam baatin de yàlla woon leen ne mën nañoo am lu ñu wax gaynde gi du man dara ñooñee bokkuñu ak koo xam ne ah yow eggoo foofu loolu mu ngi mel ni jàngoro jii rek liñ ci digle mbaa ñu tere ko ci ku ragal mu al ku bañ mu alag la wala bañ mu dal la da koy da koy jëfandikoo waaye boo ko jëfandikoowut ba mu dal la ah bu boobaa yaa alak sa bopp kenn alagul moo digal jaam yépp ne leen na ngeen daw alkane li sababi salaama ngir bëgg rekk ñépp mujj fajtan ni bann muujibal malaama nekkoon na nga wattandiku lépp lu lay indil yaraange yaraanga mooy yaraanga ji fi muy dikkee mooy yow nee nga lii amut ba yow wattandikuwoo li docteur yi wax defoo li ñu digle bàyyiwoo li ñu tere ba mu dal la ah bu boobaa danga am yaraanga boole kook sa métti ndax yaa ko teg sa bopp wa huwa firaarun ya axi min qadari rabbil wara li mislihi bil xasari mooy daw jóge ci dogalub yàlla jëm ci dogalub yàlla la sidina Omar ibn Xataab radiallahu anhu ba épidémie bu mel ni corona bi dafa mas a am ci dëkk bu ñuy wax saam moom la ñuy wax Syrie léegi épidémie dafa mas am si naamul xataab jóge Madina doon dem foofu ci saam ba mu demee bay ci yoonam ñu xamal ko ne ko dëkk ba dafa am tawat juy wàlle ju fa ne dafa am tawat juy wàlle ju nekk ci dëkk sidna Omar daal di dëpp dellu Madina ku ñuy wax Abu Ubaydata ne ko afiraarun min qadrillah yaa Omar da daw dogalub yàlla waaw mu ne ko waaw afirru min qadrillahi ila qadrillah maa ngi daw dogalub yàlla jëm ci dogalub yàlla loolu ko sidna Omar Xattaab wax saxaaba boobu ko doon wax ne ko dangay ngay daw dogalub yàlla far yàlla da koo nattu ci épidémie boobu la gaañu moom ci boppam feebar boobee moo ko génne àdduna kon gis ngeen loolu sidna Omar def feebar bi kat dogalub yàlla comme dogalut ci yow du la dal ah waaw loolu yàlla la gën a xam gën a koo xam kenn waaye yàlla it li mu dogal wutal na wut na yeneen dogal yoo xam ne dalay wax ne bu dogalee lii dogal na lee bu dogalee feebar dogal na lu koy faj bu dogalee tawat wutal na ko ordonnance bu koy dindi te feebar moom dañ ne la fépp fu mu am yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo dafa waxoon ne ba mu demee madinatu munawwara la ko nit wax ne ko yonent bi waxoon na benn xadis ne fépp foo xam ne feebar am na fa bu fekkee ma nga leen fa fekk bu leen fa jógee bu fekkee itam da ngeen fay jëm bu leen fa dem bu fekkee dafa am beneen dëkk bu leen dem ci dëkk boobu bu fekkee fi ngeen dëkk itam fi la am bu leen fi jógee sorewut ak li ñuy wax quarantaine bii ñuy wax léegi mooy maanaam yow fi mu nekk boo fi jógee man nga koo yóbbu feneen boo ko demee it mën na laa dal loolu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko wax xadis bu wér la nit ñi nag moom dañoo am seen interprétation ki nga xam ne moom li mu gëm rek la xam waaye li téere yi wax bu alxuraan waxee mu ne a ah, waaye bu xadis waxee mu ne waaye sëñ Tuubaa bi sax bu waxee ba noppi ñoom am na nu ñu koy déggee daanaka moom nit ñi da leen di xool ba xam ndax am nañu positif ndax gëm nañu sax walla déet waaw ndax lii moom sëriñ bi moo ko wax te dafa nett li li yonent bi alayhi salaatu wasalaam waxoon nag waaw li annahu amara bil firaari min sababil hilaaki wa daraari ibaadahu li sababi salaama ne yàlla loolu lépp bu koy wax bëgg nit ñi mucc képp moo tax mu di ko def wa huwa firaarun ya axi min qadari rabbil wara li mislihi bil xadari waaw jógee ci dogal bi jëm ci dogal bi rek loolu rek فظاهرا تكسب امتثالا وباطنا وباطنا استسلم له اتكالا ne saayir si mooy topp ndigalul yàlla li lim la digal mooy me lii yonent bi alayhi salaatu wasalaam wax nga def ko baatin bi mooy nga jébbal sa xol ak sa lépp yàlla li yàlla digle ci kaw muy nusuus yi dikk di alxuraan ak ak waxi gaa yu baax yi nga jëfandikoo sa biir nag nga jox ko sunu borom wàkkilu ci moom waaye kaw gi moom li sharia wax rek nga war a def waaw fa innahu musabbibul asbaabi sëñ bi nee na yàlla mooy sabab kii sabab sabab yépp li am lépp la koy sabab mooma fasiq bihi dahra waqif bil baabi kon dëgëru yàlla te taxaw ci buntub yàlla bi nga xam ne moom la ubbi waaye se waaye wax rek yàlla yàlla yàlla yàlla am na moom ah <laughs> yàlla de bi mu waxee ba noppi it lenn lu ne da ko wutal ay yoon yoo xam ne boo jaarut ci yoon wa doo yëg doo yegg fa nga jëm li docteur bi wax sabab la boo xam ne yàlla ko def xam-xam ba sunu boroom moo ko am ci xereñam jox ko ko tubaab yi yi ngeen gis ñu def yëpp ci àdduna tey noo ngi nii toog yéen ñi nekk ci bitim réew ak fu réew yi sore ñi ngi ñuy gis muy ay jumtukaay yoo xam ne technologie moo ko indi ñu di ko jëfandikoo waaw te am na loxo yum jaar ñu defar ko créer ko bañ mën koo jëfandikoo mën cee jariñu tey di jàngale masalikul jinaan ni àdduna sëpp di ci jariñu yooyu ay asbaaba ko indi yooyu mooy sabab lu yi ba yàlla indi ci lu mel nii waaye nag xam-xam ba iktisaaf rek la maanaam tubaab yi du caageen ñoo bind dañuy bind déedéet créé wuñ dara dañuy fekk lu am loo xam ne yàlla defoon na ko ba noppi ñoom ci seen bopp ñu def li ñuy wax découverte fexe ba loolu ñu génn ko jariñoo waaye du caageen ñoom ñoo ko bind créé wuñ ko garab yi nga gis docteur yi di ko fajee nit ñi fu ñu ko jëlee ñi ngi ko jëlee ci garab yi nga xam ne ñooy sax ci àll bi farmasi yi yëpp ngeen gis seen garab yëpp ñi jàng wàllu pharmacie ci garab yi ci àll bi képp lañ ko jëlee composé ko lenn lu ne ñu xam la ca mën a jëriñ doomu aadama ñu di ko ñu def ko loolu rek la waaye garab yi saxaluñ ko fi andiwuñ ko fi waaye fexe nañ nag ba xam xaasiya bi nekk ci garab gu ne lam mën a faj loolu ñoom du caageen ñoo fi indi garab yi wala ñoom fi ñoo créé garab yi déedéet yi ci des yëpp it bu mel ni avion yi naaw ak yi nga gis yëpp dëgg la ñoo ko ñoo ko ñoo ko defar waaye la tax muy naaw jaasi yi bi nga xam ne mooy moo téye avion bi ci kaw asamaan si ba nga xam ne du du du du du du mën a du mën a daanu ci suuf loole dañ ko faa fekk dañoo dem ba xam ko rek dañoo def seeni gëstu def seen i découverte sonn ca ba xam ko fexe ba liggéey ca loo xam ne nit ki buñ ko defaree nit ki war na cee mën a jaar ci ngelaw li ba dem egg fa mu jëm waaye du caageen ñoom ñoo ko matière ba ba ba tax loolu am du caageen ñoom ñoo ko ñoo ko bind wala ñoo ko kon allahu musabbibul asbaab sabab yi nga gis yëpp yàlla moo ko indi bu ci yéem dara bala nga caa yéem kan yéemal jëm yàlla ci boppam ba noppi moomam lil jamci bayna sharci wal xaqiqa ngir nga mën a boole sharia ak xaqiqa nee na fa huwa istiqaamatu lfata xaqiqa ne boole sharia ak xaqiqa mooy li ñuy tuddee istiqaama mooy ku teg sa tànk ci sunna yonent bi dëgg dëgg dëgg ki nekk ci boole ñaar yooyu ki boole sharia ak xaqiqa kooku moo teg tànkam ci yoon wi jëm ci yàlla te mooy itam sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam te la ñuy wax istiqaama muy baat bu sëñ Abdul Xaadir mbakk radiallahu anhu wa nafaana bi fonko lool ndax istixaama mooy lépp mooy diine li anna al ixlaala li anna al ixlaala bi la walil yuad zandaqatan wa saani shirkan laafana ndax ku neenal bu jëkk bi maanaam jëfandikoo sharia kooku dañ lay jàppee sindiq kuy feeñal gëm ci kaw te nëbb kéefër ci sa biir ki nga xam ne charia du ko jëfandikoo day lànk bu ñu ko waxee mu ne dafa am baatin bu muy gis dafa am lu mu xam leneen lu dul charia sëñ bi nee na kooka sindiq la mooy kuy nëbbu kéefër ci biiram tey feeñal diine ci kaw waaw beneen bu ñaareel bi nag ku ko bàyyi moom musrik nga ngay bokkaale yàlla laa fanat nii lii ma wax de dara mënu koo dindi kenn mënu koo dindi te nag léeg nga dégg ñu xër ba egg ci naan sharia moom dafa am ñu ko moom xaqiqa it dafa am ñu ko moom déedéet moom Sëñ Tuubaa moom def na nañ boole ñaar yëpp te ku boole ñaar yi mooy ki nga xam ne moo mat royukaay ki boole ñaar yi nee na kooko moo mat royukaay kiy jëfandikoo sariya kese waaye du jëfandikoo xaqiqa mutul royukaay kiy jëfandikoo xaqiqa kese te du jëfandikoo sariya mutul royukaay loolu la sëriñ wax kon ñeneen ñiy wax li wax ah xëy na ñoom dafa am lu sëñ bi wax ak ñoom te du ko wax ak ñëpp xëy na dafa am ñoom te loolu moom sëñ bi moom du ko def sëñ bi moom du bind ba noppi wax li wax ba noppi di waxaat leneen lu wuuteeg li bind loolu xel nangu li mu bind lii moo jub ba ñëpp xam ko mu bind ko mu leer naññ mu wax ko ba noppi nag waxaat leneen lu wuuteeg loola loola ku koy def yaa ngi duural sëriñ te waxoon na moom ci làmmiñam la yonent bi waxoon ne man kadaba alayya mutaammidan falyatabawa maqaadahu min annaar képp ku ma naral wala nga waxal ma lu dëgg ne maa ko wax te waxuma ko na nga xam ne sab gétt mu ngi ci digg sawara sëñ baa ko wax na ko yonent bi waxee moom ci wax na ko ku ma duural waxal ma lu ma waxut na nga xam ne sab gétt ci digg sawara moo tax Sëñ Tuubaa nee na yomb na lool waaye day ak wóoru ku koy def ku ne war ngaa gëstu la ngay wax ba bu ñu la laajee nga ne mi ngi ca téere bi fii la ko bind walla nga mën a indi sanad bu wér boo xam ne mën nga koo topp ba mu egg ci sëriñ bi te ña ko wax di ñoo xam ne doyloo nañ leen seeni wax waaye sëñ bi nee na sëñ bi nee na hmm, bari na de aka bari te te te am xutuura am danger ndax nee na ku ma ko ku ma waxal duural ma da nga dem sawar loolu moom wax na ko mag ñu bari waaw wa waladul amali tarku tawba wa qaswatun wa kasalun wa xawwa nee na loolu day jur ngay mébal rek maanaam di mébal rek nit koo xam ci ay mébal rek waaw taman nii maanaam foo toll daal yow daal yaa ngi jàpp ne rek yow sottal nga dagg nga sibiyee ba noppi faatoo nga dugg àjjana tarku tawba mooy bàyyi tuub defe na rek yow amatoo bakkaar ba léegi sax dootoo tuub wa ak wowu xol day da koy jur wa kasalun ak tayal xuuba ak musiba wa huwa yudika li tarki alfardi wa li lu rox lu roxsin yufti ne loolu boo ko jàppee da lay bari bàyyiloo farata farata day jot doo ko def te ku defut farata naafila ngay def loo mën a def ci àdduna te du farata loolee jëf jum mën a doon moo xam julli la moo xam jaamu yàlla boo moo xam jëf la jum mën a doon rek loola boo bàyyee farata rek loola bu dee lu baax naafila lay tudd naafila nag mënut a foor a foor ba gën farata moom naafila moom mënut a foor ba gën farata sarax naafila la bu la neexee nga def bu la neexee nga bàyyi waaye sarax mënut a foor ba gën asaka nit ñi nag naafila lañ gën a sawar ci def farat nit ñi naafila lañ gën a farataal lañ gën a sawar ci def farata boo gisee sax am na ñoo xam ne dañuy naafila te duñ woor loolu xam nga ne doy na waar doo woor am na ñu ma wax ne dañ ko def am na ku ma ko laaj sax ah yàlla bàyyi farata di ba noppi di naafila day doy na waar lool kenn xamul lu doon waalam bi ann sayra lil mari saria fa raqibin ahwala mawtin yaa muti nanga xam ne nit ki ak dundam ci àdduna dafa gaaw li ngay dund ci àdduna dafa gaaw lool xëy na yow nag xamoo ko yaa ngi toog rek gisoo ko waaye boo doon bu la yàlla doon won ni ngay doxee ci àdduna jëm ci dee ni mu gaawee <laughs> da danga da bàyyi xel da danga da nga am loo bàyyi xel de faraqiban ahwala mawtin bàyyil xel tiitaanga yi nga xam ne moo am ci dee bàyyil xel sukuraat bàyyil xel bi malaaka yi di dikk bay nocc sa ruug yi di ko yóbbu bàyyil xel ya nga xam ne yaa ngi koy teg sa bët ci wàllu àdduna ci nga da yi nga daan def ci ay musiba ki mooy yàlla nga di ko gis ak mu wóor leen tey jii ngay génn àdduna moom jeex na tey tey jii moom yow da nga xamal sa bopp ne jeex na bis ni tey amatoo benn seconde boo war a dund ci dund ci àdduna jeexal ne xalaat yooyu de ko bàyyi sa xel sañ bi nee na xalaat yooyu nangeen koy bàyyi seen xel yaa mu ta yow muy topp yàlla kat laa wax yow mi nga xam ne toppoo yàlla nag loolu neex ngay def moom boo ko defutit kii topp yàlla ak kii topp yàlla ñooy am ñoom ñëpp ahwalul mawt dana egsi mu ne lam tadri hal anta ma al awtaari fawqa shafa xufrin ilaakin haari ne sa it yu bari yi te nga topp yàlla wala nga bàyyi xel dee itte yooyu xamoo ne bi nga nekkee ci itte yooyu ba mu fàttali loolu yàlla xamoo ne sax boobu ci jamono yooyu rek yaa ngi tiim sa paxum bàmmeel mi nga war a dugg wóoru la boo demee jamono yooyu ngay itte woo ba sa xol sa xel fees del nga nekk ci itte àdduna yi boo demee fi mu toll nii yaa ngi teg sa tànk si pax mi nga war a dugg dem àllaaxira ndax kenn mënta garanti bu ma xëyee danaa gont kenn mënta garanti dina bu ma gontee danaa xëy kenn mënu koo garanti ndax mbir yi ajuwul ci wér-gu-yaram ajuwul ci dara mi ngi aju ci digg bu egsi te nee na woon ci alxuraan laa yaatikum illa baxtatan saa buy digg di bett kenn mënu koo préparé moom ndax da bett waaw saa su ne moom nit bis bu muy faatu du xalaat mukk ne dana ci faatu xalaatu ko ndax mu ngi yoon mébat yu bari lool projet yi du jeex yu mu teg ci kanamam te jàpp na yii dana sotti te fekk booba jeex na waaw jeexal na amatu fi sax ay ay heure yu gàtt moo ko dese ci àdduna mu dem yoonam waaw te nag li ci gën a metti mooy soxla yooyu nga nekkoon wala nit ñi nit ñi ku ñu xas ba suul fàtte nañ la nit ñi boo demee ci armée <laughs> danga xam ne nit ñi kenn ñoru leen kenn moom ñëpp yàkkamti naaj wi dafa tàng waaw dafa sedd soxla yi ku ne ma ngay yàkkamti pour dellu ci kër ga la fa xew moom kenn du ko jiitu noonu lay yàkkamti yow nag bàyyi la fa dem seen yoon am na ci ñoo xam ne sax itte waxtaan waxtaanoo dana leen jàpp ba ñaanal la benn xul wallahu ahad sax walla benn faatiha du leen duñ ko tal waxuma laa nag buñ demee ca mbumbaay ma ca kër ga nag waaw ñee ngay añ bi na gaaw ñee ngay wax ay soow ay yëpp ku ne yaa ngay waxtaan sa wax faatu moom fàtte nañ ko léegi boo demee ci dëj yi loolu ngay gis ki faatu moom bu ñu jógee ci armeel yi rek fàtte nañ ko kon doomu aadama te yow sa benn bakkan bi nga am li coow li bari bari yow sa benn bakkan bi képp nga am boo ko ñàkkee ñi la gën a jege sax dinañ la jooy ay fan rek waaye bu yàggee tuuti nag ñu dell ca lañ nekkoon waaw bu añ jotee ñu añ bu reer jotee ñu reer bu xaqataay jotee ñu xaqataay lu leen neex ñu nekk ci yow nag yaa xam ci li nga ne ñoom topp toowuñ ko seen yoon nag kon nit war ne nag moo tax mu ne fa raqiban ahwala mawtin yaa mutia ne Sëñ Tuubaa nee na bàyyi leen xel tiitaange yi nekk ci faatu waajtaayu de metti na lool dee ba noppi dugg ci sa bàmmeel guddi gu jëkk googu mooy gi gën a metti ci kaw suuf ci nit waaw guddi gi jëkk gi ngay njëkk fanaan ci bàmmeel dara gënu koo metti waaw yooyu yëpp doomu buy dund wér daanaka du xalaat yooyu day xalaat na day dund ba faw rekk kon war nañoo bàyyi xel nee na bi neena nañ bàyyi xel loolu ama albatalatu wa tadyiu alumr bi geyri ma yaani fadaauha yudur ne maa ngi lay waxaat loo xam ne nag ci rasail yi la bokk mooy bataala bataala mooy lan mooy nit ku defut dara nit koo xam ne doo xëy ci dara amoo looy liggéey dara nga du def doo xëy ci lu jëm ci wàllu yàlla doo xëy ci lu jëm ci wàllu ad diine eh, wàllu àdduna daal boo yeewoo rek moom ba jóg naaje yeewu lool jóg nag di taxawaalu rek doo am sax doo sax doo jëm fenn ngir ñàkk ngir rek defoo dara waaw ah, ki jóg di wuti lum liggéeyee kooku bokkut ci ñooñu ki amul lum liggéeyee di ko wut kooku bokkut ci ñooñu waaye ki nga xam ne wutu ko amut soxla ci loolu jàpp na ne bu añ jotee dana añ bu reer jotee desu ko seetaan rekk kooku mooy battaal wa tadyi'ul umr ak ki nga xam ne day sànk ak dundam bi xëyri maa yaani ci lu amul njariñ ah ki nga xam ne dundam gépp ci nee xiilaa xaala rek la ko sànq di nettali rek toog ci garan place yi rek majalisa shaqaawa nga xam ne day xool suba ba ngoon du xam lu defal yàlla du xool lum defal boppam ñooñu ku ci dem ba tëdd ci sab lal da ngay mere sa bopp waaw nit koo xam ne bi nga xëyee suba ba ngoon defoo dara loolay jëriñ ci wàllu yàlla defoo dara loolay jëriñ ci wàllu àdduna sëñ bi nee na fa daauha yadur ne feebar bu gën a mën a lor nit ci bataala ak sànq sa dund ci xiilaa xaala ne feebar bu ko gën a bon amut benn feebar bu ko gën a yées amut ndax fi ne bu bataala amee nit ku deful dara mooy am jot te jot moo indi li muy indi mooy indi coow yi ngeen gis yépp nit ko am jot rek ko nit ko amul jot talu koo xam ne boo xëyee noo def gannaaw boo jullee ba noppi nooy def ba egg fa nga jëm ci sab liggéey bañ a tardé boo eggee summiku amoo loo ittewoo lu dul nekk ci sab liggéey te loo di xumbal ay garan place mbaa ci ay xiila ak xaala doo ko tal waaye nag ñi am jot nag at yi ngeen dégg yépp muy coow yeeg réseaux sociaux yeeg waxante yi ñaaw yeeg wax loo xamut ak yooyu yépp li ko indi weesuwul ñi nga xam ne duñ xëy ci dara duñ gont ci dara ñooñu rek kon bu nit ñi ñàkkoon jot rek coow li wàññi ko bu nit ñi ñàkkoon jot képp nga gis coow yii yépp wàññi waaye nit ko amu jot waaw yàlla na yàlla musal am na mu fassiroon yi ñu firi ni eh, ay jooju yàlla wax ne walaw basata allahu risqa li ibadihi la baxaw fi l yàlla bu joxe woon wërsëg te du am benn sabab kenn ku ne li nga soxla rek mu jox la ko amul liggéey amul sonn amul xëy amul gon ku ne li nga bëgg rek boo tàllalee si loxo mu jox la ko yàlla ne loolu bu amoon la baxaw fi l kon nit ñi danañ bew ba yàq suuf sépp ndax jot gi day ëpp jot gi day ëpp ba noppi loo bëgg nga def ko loo bëgg a def da ko def ba noppi amuk jot kon ak jot baaxul baykat ba nee na amal eh, faraagu wa shabaabu waljada mafsadatun lil mar'i ay mafsada ne ak jot ak waxambaane toll ci sa digg doole te defoo dara walla nga digg toll ci sa digg doole yëg sa bopp ba jàpp ne loo bëgg a def mën nga koo def wal jada ak jékki-jékki am alal joo sonnut alal ju jékki-jékki rek egsi ci yow sonnoo jë lijjanti li xew dégg li ñu wax ne léegi mooy maye lijjanti rek lijjanti ba ba ba ba am te sonnoo nga jaaree ko fu ne ba am muy koom mu mu la dikkal te sonnoo ci nee na ñett yi mooy yàq nit mooy yàqam réew itam ndax bu nit ñi yàqoo réew mi yàqu te nee na mafsadatun lil mar'i ay mafsada day yàq nit jot ak toll ci sa digg doole lu la neex nga def muy li ngeen wax xale yi wax xaw ma naan jeune la jeune la ah jeune waaye jeune koy wax dëgg yàlla mooy ku toll mooy ku war a jëf nag moo toll ci xelam mat mat na na kàttan na mën-mën na def moo war a def moo war a moo war a moo war a avancer réew mi moo war a fexe ba réew mi jëm kanam moo war a fexe ba def lu kenn mënul loolu koy ku toll ci sabab loolu nga war a wone waaye toll ci sabab daanaka yàgg màggat yi yéen a yem fu la ker gu ker ak suba gi fekk fa la la ker ak ngoon gi di fekk bu jeex nga dem ca ka ca des koñ bu ne nga dem fa boobu sabab lu muy jëriñ boobu sabab amul benn njëriñ musiba la faalam bi anna waqta shaxsin min aaz ashyaihi fa ashqilanhu bil aaz ne na nga xam ne temps nit temps bi mu am waqt ne mi ngi nekk ci li gën a fort ci doomu adama temps bi nga am ci sa àdduna ji ne mi ngi bokk ci li gën a fort ci kaw suuf ndax ci temps bi nga am rek ci nga mën a liggéey ci wàllu yàlla ci nga mën a liggéey ci wàllu àdduna boo amul temps boobu doo mën dara américains yi gën a bëgg xaalis ñoom nee nañu temps bi mooy xaalis ndax ci nga mën liggéey xaalis kon temps mooy xaalis mun na nag sëñ bi ne da nga xam ne temps bi nit am ngeen gisee léeg-léeg du ko mën naa ko firé ni ko firé woon bi an na waxta saxsin waxtu nit waaye boo ko waxee xale yi diñ ko xam mooy temps rek bi nga am aw awqaat yi ngay dund loolu mooy sa dund ci nga mën a jëfal yàlla ci nga mën a jëf ci sa àdduna ba tedd ci nga mën a jëfal réew mi nga nekk ci nga mën a jëfal diine ji fa asqilanhu bil aas ne gannaaw moo gën a cher lépp temps boobu moo gën a cher lépp fa asqilanhu bil ars seetal li gën a foor ci sa li nga gën a bëgg nga jëf ko ci temps boobu li nga gën a bëgg lépp fexeel ba jamono boobu nga jëf ko ci waaw waaye ñoo xam ne nee dañuy rey dañuy rey dañuy waxtu dañ koy rey waaw waxtu kenn du ko rey waxtu des koy dundal loo koy dundalee jëf ju baax ci wàllu àdduna wala wàllu yàlla wa kasratu alfaraxi walraxaati daawi bi zikrin ma amaama yaati mais bokk na ci it yi gën a bon ci nit ci rasail yi ci la bokk nit koo xam ne daal moom dara ñoru ko foo ko fekk ma ngay xaqtaaye ka rek amul benn ittee amul benn xalaat war raaxaati foo ko fekk itam ma ngay noppalu rek bu nelawee ba xamatut lu muy def mu jóg ker gu gën a sedd mu lal waaw barab bu gën a neex ma nga fa moom daal ci bànneexam rek ak bakkanam ak noflaayam rek ci la dax ci la nekk nee na loolu day jikko ju bon la daawi bi dikrin ma amaama yaati ne boo bëggee luy wara a saafara loolu nag saxool di tudd yàlla foo di fàttali ku itam lii ñëw ci sa kanam te mooy dee di fàttaliku lii ñëw ci kanam te mooy dee da nga na nga koy fàttaliku foo toll boo ko defee dootoo dootoo fi nekk di xal-xali dootoo fi nekk itam di tëdd ka nelaw rek ak a jóg waaw kasaratul faraxi war raaxaati am na ñoo xam ne maanaam bakk bànneex rek lañ bëgg fu ñu noppaloo rek fu ñu noppaloo la ñuy xool moom lañuy seet fu gën a neex rek foofu lañ jëm mais loolu day kuy bàyyi sa xel ëllëg doo ko def bu dee ci wàllu yàlla mbaa muy ci wàllu àdduna euh, min maradil mawti wa sacratin lahu ngay fàttali ko bis bu bis bu ma feebaree feebar bi nga xam ne ci laa nar a génne àdduna nga di jax bàyyi xel wa sakratin lahu ngay bàyyi sa xel ci bis bu may sukuraat bis bu ma tëddee ba nit ñi wër ma mu wóor ma man mi tëdd ne man àllaaxira laa jëm ne ngay bàyyi sa xel ci yu mel noonu wal qabri ngay bàyyi sa xel ci ne lu mu yàgg-yàgg danañ takk sa tànk yi takk sa loxo yi dugal la ci pax mu xat suul la dem bàyyi la nga di ko bàyyi xel wal xasi mu leer lan la itam da nga génn ci pax moomu yàlla yóbbu la ci pénc mu mag euh, laaj la li nga nekkee woon ci sa àdduna lépp bu dee lu baax mu yóbbu la àjjana bu dee safaan ba mu yóbbu la safara wa raqib hawlahu ne bàyyil xel bu baax tiitaangam yowal xiyaam lum sori sori dana ñëw yàgg-yàgg dana ñëw ne nit ki bàyyi xel yooyu du fi nekk rek fu mu toll di xalxale ko rek caaxaan ak di noppalu rek di noppalu rek ñoo xam ne noflaay neex na leen lool noflaay rek toll ñu ngi noppalu nopp noppalu ba noflaay bi sax da leen di indil coono noflaay bi sax day dem ba indi leen coono ñoom ci seen bopp indil leen sax ay feebar ndax coono yi mooy lan nit kuy tëdd rek foo ko fekk feebar yu bon yëpp dana ko dal yi ñuy tuddee ay diabète ak yi ñuy tuddee ay euh, yeneen feebar yooyu yëpp daf koy mën a dal waaw suukar ak diabète ak tension ak yooyu yëpp nit kuy tëdd saa su nekk du yëngal yaramam tawat yooyu moom lay gën a yem mu boole foog nag perte ci wàllu yàlla perte ci wàllu àdduna waaw ndax euh, kon na ngay fàttaliku dee di fàttaliku sukuraat di fàttaliku xabru bi ngay dugg ëllëg te xam ne dana ñëw di fàttaliku ëllëg bis penc waaw wa zikri taxsirika fi amrin salax salux wa annahu yubxidu jalla dal farax sa gàttañ lu gi nga gàtt ngay bàyyi xel itam di fàttaliku fii lu baax li nga war di def te doo ko def foo toll ngay fàttaliku ah man di wax dëgg yàlla damaa sàggan waaye nangam de waroon naa ko def tey jii di wax dëgg yàlla weeru koor bii waroon naa nëga ma ne wàcce na ci nangami kaamil alxuraan te defuma ko waaw dëgg dëgg weeru koor bii di wax dëgg yàlla lu mu néew néew waroon naa cee wàcce lu mu néew néew ñaari kaamil alquran wala ñetti xaayu kaamil alquran te defuma ko te dara teguma ko lu dul bëgg noflaay ak bëgg nelaw ak di biddantee tëdd rek te nee na melo day merloo yàlla te yàlla merlum yàlla yàlla nu ci yàlla musal kon tayal ba ëpp di nappalu rek di nelaw rek hmm? musiba la de amalul njëriñ nit ki ci wàllu addunaam amalul nit ki ci wàllu yàlla amma ida ihmaaluhu nasita maa isaatika in asayta waaw faalam bi ann dalika alihmaala laysa bi ihmaalin lahu taala bal dalika istidraajuhu subhaanahu min xaysu la taalamu sel gufranehu ne yàlla bàyyi gim la bàyyi ngay def lu ko naqari mu bañ la koo daal di teg fi bul yaakaar ne loolee dafa mel ni ku ko fàtte fàttewul dara waaw neenalul dara itam li ngay def te defe ne xamu ko nga xam ne yow li tax nga jàpp ne xamu ko mooy lu tax da teguma musiba mi léegi yow loolu tax fi mu nga jàpp ne yàlla da ko fàtte ne euh, loolu ab jay la bu la yàlla di jay kepp te fekk xamu ko yàlla dalay lay jay dong ngir rek bu lay bëggal lu mu la teg ëllëg ki si biir doo am pexe doo amu lay maanaam loolu li mu bëgg a wax mooy dangay gis nit muy def lu naqar yàlla mooy yàlla yëpp mu di ko def waaye du feebar toujours it day am xaalis waxtu wu nekk itam ay soxlaa mi ngi faju mi ngi doxal addunaam ni mu ko war a doxalee te teewul bis bu ne mi ngi def lu naqar yàlla moom day daal xalaat ne bu fekkoon ne li ñuy wax dëgg la kon man lii may def mu naqar yàlla kon yàlla teg duma na ma bu yàgg kon li tax dumawuma moo tax li boo demee daf ko fàtte na yàlla daa fàtte xëy na kon li may def walla li may def te koo ñorut wala ñi koy wax li ñuy wax daa amul ni ñu bare foofu lañu ko teg teewut maa ngi am dépense maa ngi am wërsëg samay soxlaa ngi faju maa ngi ànd ak sama wér gu yaram dara jotu ko te man du li yàlla digle du ma ci def dara li may tere li muy tere du ma ci bàyyi dara waaye man samay mbir a ngi dox dañoo xam ne loolu istidraaj la moom lañuy ñuy tuddee ku yàllay jëy nga jeyako kooku mooy ku yàllay jëy nga jeyako istidraaj la yàlla na yàlla musal ci istidraaj sal yow miy def loolu gaawal ñaan yàlla mu jégal la yaa ngi ci lu wóor amma ida aminta min makri lilah fa daka taxjirun alayhi laa siwa mu ne it ki nga xam ne ba tey dafa wóolu makrullahi pexem yàlla waaw kooku daa xamul yàlla ki dem ba nga xam ne makru falaa yamanu makrallahi illa alqawmu alxaasirun nit ki nga xam ne dafa dem ba gëm ne moom amut lu ko tee mu mën a dugg àjjana moom daal gëm na ne man daal def def naa loo xam ne yii bu ma eggee ci yàlla nag dëgg dëgg sama jëf jii moom man danaa dem àjjana moom sëñ Tuubaa wax de ñu may seetaan nañ xam ne lii ñuy wax waxi sëriñ bi la ba ñu mën a xàmmee liñ koy waxal ak li waxal boppam li ñu koy waxal ak li mu waxal boppam ne ki nga xam ne dafa wóolu makrullah te mooy ki nga xam ne xëy na mi ngi def lu baax wala mu yaakaara yaakaar ba yaakaaram ëpp te sax yaakaar sax mu ëpp léeg-léeg boo demee bay bëgg a faatu mu ëpp waaye bu fekkee dara jotagu la da ngaa war a yemale alxawfu nga war a yemale ñoo war a yem yaakaar ba ëpp gënul nit ki dafa war di yaakaar yàlla di ragal yàlla di tiit foo toll sama jëf sa jëf waxtu wu ne ngay jàpp ne sellul waxtu wu ne ngay jàpp ne yàlla nangagu waaw wala na ko yàlla digle defuma ko waaye dama dem ba wóolu sa bopp dama dem ba wóolu sa bopp wóolu makrullahi sidna Abubakar Sadiq radiallahu anhu dafa am ko dikk ci moom fekk ko mu sonn lool di xalaat diggante ak boroom mu ne ko waaw Aboubacar yow xanaa du bokk nga ci al asratul mubashara bi janna yow yàlla boole na la ci ñi nga xam ne fukki nit yi yonent bi wax ne dañuy dem ajana nga dem wax na leen ko wóor am nañu wax ne sax wan na leen te yow yaa ci jëkk fukki yooyu yaay première bi waa sa jooy yii ak sa tiitaange gi lu tax xanaa ngaa gëmul li yonent bi wax mu ne ko ah kay bañ a gëm yonent bi maa ko maa ko njëkk a gëm ñëpp kon lu wax gëm naa ko waaye sama borom subhaanahu wa taala dafay ku doy waar ku xereñ yàlla mën naa wax ba noppi la mu wax nga xool ko mu dañ ci sa ci yow yow te fekk la mu waxoon dara dañu ci te lam lam bëgg dana ko def yàlla dafa xaj dafa xarañ makrullahi koo koo gis mu wóolu ko rek dafa nar a perte ëllëg yowmul xiyaam illa al qawmul xaasiruun ñu nar perte jëfa jëfa jëf ba gëm ne dangay nga dem àjjana yaakaare yaakaar ba jàpp ne loola neex nga def foog nga dem àjjana yooyu sëñ Tuubaa nee na wóorul nii nii waaw kon loolu yi nañ ko bàyyi xel bu baax aw Aboubacar nee na bu ma demoon ba àjjana sama borom wan ma àjjana buntu baa ngi nii ne ma dugal sama tànkub ndeyjoor te tànkub càmmoñ bi dugagut wóoloobu ndax diggante bi yàlla mën na fi lu ko neex waaw du tàggu kenn coobareem lay jëfandikoo jëfandikoo ndax loolu day tax a ñeme day tax amu fit lu la neex nga def amatul loo ragal loolu mooy ma al amnu min makrillah yàlla na ci yàlla musal ama al qunuutu fa tafakkurun fa tafakkar wanzura fi siati rahmati taxwil bushara ba tey jikko bi it baaxut xunuut mooy koo xam ne dangaa dem ba tooñ ngaa tooño tooñ ba jàpp ne mu yàlla mënatu laa jégal def nga yu bon yu dul jeex ba egg ci yàlla daal dootu la jégal yow daal ba boo nga xam ne dangay dem sawaro rek ne loolu nag di koy dindi fa tafakkar wanzura da ngay xalaat tey xool fii sixati fii sixati rahmati yaatug yërmande yàlla ji yàlla ne sama yërmande yaatu na lool ci ñiy def lu baax te wax na ne itam inna allaha yaxfiru dunuba jamian aaya boobu bu ko gën a am yaakaar ci ab jullit amul yàlla ne bàkkaar yépp danaa ko jégale lu dul bàkkaar ak bokkaale waaye bàkkaar yi ci des yépp bu ngeen ma ko jégalee ëllëg yowmal xiyaam danaa leen jégal lépp moo tax nit yaar yi waru koo def nit waruta jëfa jëfa jëf ba wóolu pexem yàlla waaye nit it wërta mooy mooy ba egg ci naagu ci ne yàlla yërmande yàlla mënatu koo dab yàlla yooyu yëpp dañ koy bañ bul jëf ba jàpp ne xalaas man egg naa fa ma jëf am naa billet ba noppi dagg naa sama billet ba noppi lu mooy yàlla gi bari bari itam dellul gannaaw te tuub te xam ne yërmande yàlla lu yaatu la sunu borom mën na laa jégal incha allah kon loolu it ñu bàyyi ko xel bu baax te ñaar yooyu day hmm, iblis dana ci jàpp nit ñu bare bare bare dana ci mbaal ñu bari ba jàpp leen ñi da di wan na moom yéen mbaayalal nañ leen def leen lu leen neex ñii mu wan leen ni yéen moom kenn mënu leen kenn mënatu leen a defar am na ci xisa boo xam ne toujours ma di ko wax mooy waa ji nga xam ne moom li ko yàlla xiiroon mooy rey nit boom tuur dereti doomu aadama ba yàlla dogal mu rey lu mat juróom-ñeent fukki nit ak juróom-ñeent te nee nañ ña ci ëpp sax ay nit yàlla lañ ak boroomu xam-xam waaye ndeysaan mu toog benn bis rek xalaat ne daal tey jii xam naa ne daal man daal ku yées la man daal kenn yéesu ma maa yées ci àdduna ma daal tey jii dama bëgg a tuub dellu ci yàlla ah li mu def rëy na ci moom muy jóg nag di dem ci nit yàlla yi di leen laaj que mu njëkk a dem mu laaj ko ne ko ah man de dama sàmb boy lool lépp luy ak mooy yàlla de daanaka def naa ko ma nettali ko juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent yooyu mu rey kooku moom ba mu ko waxee moom wax ji da ko weesu moom mu tiit ne ko yow kenn mënu laa jégal bay ba nga dem acc acc jógal fi ndax waa ji génn ne ko ah gannaaw man nag leeral nga ma li ma doon laaj am naa lu ma ci xam te mooy man lu ma mën a defate it gannaaw damay dem sawar rek yow mi ma ko leeral moom dama lay mott li muy téeméer jël ngànnaay lam daan reyee rek daal di koy daal di koy rey moom kooku mu mottali téeméer mu daal di dem waaye ndeysaan ku yàlla na nar yërëm gis ngeen ko taxul mun naa ko mu ne ah naa demaat ci keneen demaat ci beneen borom xam-xam laaj ko wax ko yim jaar yëpp kooku di borom xam-xam te ku xam yàlla ne ah yàlla day inna allaha gafurur rahim yàlla day kuy jéggal la te ku am yërmande te nee na dana jéggale bàkkaar yépp kon daal tuubal te dellu ci yàlla tuubal tam dëggu ci yow nga dellu ci yàlla boo ko defee suñu borom mën na laa jégal mu tuub mu ne ko nag da ngay génn ci dëkk bi nga doon defee ñaawtee fi dem ci beneen dëkk boo xam ne ay nit ñu baax a fa ne di jaamu yàlla ngay góorgóorlu waaye fi nga daan defee ay ñaawteef boo fi nekkee ñu nga daan àndal di ko def maanaam sa xel du ci jóg kon da ngaa war a dem foo xam ne dëkk la boo xam ne ay gaa yu baax a fa nekk yoo man di roy ci ñoom nga nga fàtte li nga jóge ba nga fàtte li nga jógee ah mu daal di def ndigal la fa saas ba mu demee ba jug dëkk ba mu sonn toog ci kenn ker di nelaw di noppalu yàlla moom ko foofu far mu faatu eggul ci dëkk eggul ci dëkk ñu ne malaaka yi nit bu faatoo malaaka yërmande yi ak malaaka yi nga xam ne ñooy yóbbu nit sawara wala ñu di ko buggal dañuy jëkkalante kenn ku ne day taxaw defe ne moom moom moo war a euh, jël waaj loolu doomu adama yëpp ne malaaka yi yërmande yi ne malaaka yi nga xam ne ñooy buggal nit ñoom daal di dikk ni kii ñun sunu sunu nit la ndax nit la koo xam ne mosul defal yàlla dara ci ci ci mooy yàlla rek la mas a nekk kon noo ko war a yóbbu malaaka yi ne déedéet sunu borom kat nee na kenn ku ne li mujj ci yow ci la lay ate wala aqibatu lil muttaqin kii ak mujjam tuub na tuub gu sell jógoon fas yéene la ko yàlla digal mu dem def ko moo taxoon mu jëm ci dëkk bii mu jëm kon kii ku sell la nun ñi suñu waay lay war a doon ñu ne nañ natt diggante fi mu bàyyi ko ak fi mu jëm fu mu fi gën a jege rek ñu àtte ko fa bu fekkee daa gën a jege fi mu jógee ñu atte ko ci la mu doon jëf foofu bu fekkee dafa gën a jege fi mu jëmoon yéeneem ñu atte ko ci yéeneem innamal amalu binniyat ñu ne bañ koo seetee benn sebre la gën a jege dëkk ba mu jëmoon sunu borom atte ko ci yërëmam jën ma ne jégal ko bàkkaaram yëpp la na nu yàlla jégal suñu bakkaar yëpp dara jëy weer bi ndax kenn mënut a def du la yóbbu àjjana kenn mënu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wasallam sax nee na man sax illaa an yataxammadani llahu bi rahmatihi maanaam mu dugal ma ci yërmandeem rek kon yàlla na dugal ci yërmandeem yërmandeem rek moo yaatu waaye kuñ seet say jëf natt ko hmm, bu ñu la bàyyilul dara de boobu tu du sotti yërmande rek la ci yàlla mën a teg ñu sutural kon ñaari jikko yooyu daal lu bon la muy naagu yërmande yàlla ak wóolu pexem yàlla amma amaaka an uyubika maa ruyati aybi nnaas mahma waqaa ba tey nee na jikko bu ñaaw a ngi nii ci rasaayil yi la bokk gumba ci say ayib maanaam yow doo gis sa benn defu xamoo ne am nga benn benn defu ci àdduna yow yaakaar nga ne sa lépp a baax waaw waaye nag ruyatu ruyatu ayibi naas mahma waxaa yow daal ayibi nit ñi rek ngay xool moom ngay gis waaye yow sa ayibi bopp defe nga ne amoo ko wala boo xamoo fahzurhumu wastur alayhim abada yasturka yastur laka al awrata rabbuka gada ne nit ñi na nga leen daggal aw lay maanaam nit lu mu def rek nel ah diw de def na nangam diw de nangam bu ñu la ko nettalee ba nga dégg nga ne ah xam naa ne dafa juum rek xam naa ne dafa fakkatalu rek waaw fexeel daal ba layal ko ne loolu na doon sa jikko wastur alayhim te foo toll itam del sutural nit ñi bul wuññi awra nit ñi foo toll rek eh, di wax ci ñoom li nga li nga xam ak li nga xamul li nga xam ci ñoom sax sutural ko waxuma laa nag li nga xam ne xamoo ko seeni awra foo toll di ko feeñal gënul ndax boo suturee suturalee nit yàlla suturaal la boo wuññee awraw nit yàlla wuññi sa awra yàlla dina ko wuññi foo bëggutoon kenn xamal la fa dara nee nañu koo gis muy wuññi awra yi doomu aadama yi bis dana ñëw yàlla wuññi awraam foo xam ne bëggutoon kenn xamal ko fa dara waxuma laa ëllëg nag yowmal xiyaam amma dawa u xubbik ti dunya allati xaqiratun la daa zil ne bëgg àdduna nag moom dañ na mooy rasu kulli xatiatin ne ordonnance bi koy faj te muy lu xeebu àdduna ji ñuy bëgg ba fonk ko lool nee na xaqiratun jiddan lu xeebu la du dara la dazil millati ci borom ngër mi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaw kooku nii yaakaar naa mën nañoo yem foofu am ñu continuer ah buntu bi des des na lu bari dafa des lu bari ma bañ ñu ba ci digg bi yam yem dafa des lu bari waaw léeg-léeg dañuy dem bunt bi des lu bari bu ëllëgee boo dikkee doo am foo yem waaye nañ dem rek waaye des na lu bari mu ne lii mën nañu yem foofu yem foofu rek ndax laaj yi ak yooyu ci la bokk waaw te fi xaw na maa sonn tuuti koor moom dafa xaw a diis rawatina ngay wax metti loolu yàlla na yàlla defal dëgg ak topp eh, téere bii di Masaalikul Jinaan war nañu ko jàngaat mag mu bind lu amee solo nii leeree nii wax dëgg yàlla ñu di ko romb rek dëgg-dëgg loolu day waxuma la dara waaye du orma du orma Sëñ Tuubaa ni mu sonnee ci téere bii ak li mu ci def lépp te nun rek ñoo tax mu def te lim ci def lépp ku ko jëfandikoo gis njariñam fii ci àdduna gis njariñam alaaxira te ñu bari dañ koy daw téere la boo xam ne ñu bare bari dañ koy wattandiku lu tax mooy dafay doomu aadama ay ayibam daf ko ragal ay defoom buggul ku ko wax ku koy wax sax léegi doon ab noonu masaalik ñaare ñi koy nangoo toog di ko déglu ñu néew la ndax dafay laal sa xel day laal sa xol di laal say ayib di laal li nga bëggul kenn xam ko ci yow moo tax e, nit nag feebar ki la koy fajal mooy ki ko xam te Sëñ Tuubaa mooy docteur bu mag moo xam feebaru doomu aadama yi lépp lu nit di nëbbu ci sa biir rek boo jàngee masaalik da nga ko xam da nga xam sa bopp te ku xam sa bopp xam yàlla waaw ku xam sa bopp xam yàlla te xam sa bopp gën a jëfe xam yàlla waaye téere bi moom ku jàng di nga xam yàlla di nga xam sa bopp waaw da xam ne it mbër la moo xam ne moom mii bariwul ay morom de ndax daal téere bii ni ku ko jàng xool fi mu ci jaar ak lim ci bind ak masaadir yi nga xam ne fenn fu ne dugg na fa source yi mu jël andi ko référence yi du jeex yoo xam ne jamono ba mu koy jàng ba mu koy mool ma ne mool sax jamono yëpp koy bind fanweeri atam xëy na day door a mat ci li li li ñu wax ci lu bare bare fanweeri atam day door a mat diggante boobu mu jàng fi téere yëpp ak ngir yëpp mazahib yëpp rawatina tasawuf téere yooyu yëpp tudd na ko ci biir référence yooyu yëpp benn bu ne nangam ji di wax na ci nangam nangam ji wax na ci nangam yooyu yëpp mu indi ko loolu ci diir bu gàtt boobu ak ci jamono yooyu nga xam ne tey jii sax xam-xam yomb na internet yaa ngi nii téere yaa ngi nii lépp a ngi fi waaye jamono boobu nga xam ne téere yombut boroom xam-xam bu mën a jàngale téere bi sax moo gën a jëf loolu yëpp téewul mu dajaleel nu lii di téere bii di Masaalikul Jinaan nga xam ne moom ku ko jàng jub ku ko jàng sell ku ko jàngit même bu fekkee bi nga koy jàng boobu sa xel nekku ci bis boo demee ba doon mag sa xel dana ci dellu siwaat nit bari na lu muy lu mu faalewul waaye dafa to ay tolluwaay la rek xam nga xale moom li may wax rek ki nga xam ne dafa toll ci diggu dooleem <laughs> di su waxambaane problème mu àdduna bi ñëwagul màggatagul defagul dara kooku day jàpp ne yi ñuy wax yëpp ay waxi kii rek la yoonam amu ci soxla kooku nag moom du royukaay du koo xam ne warees na koo xool sax dañ koy bàyyi rek bis dana ñëw yàgg-yàgg dana am bis kon ñu ngi ñaan yàlla yàlla nu yàlla defal dégg ak topp alladina yastamiuna alqawla fa yattabiuna ahsa ñu ngi nuyu ñëpp nag fan yi rek maa ngi jot ay téléphone yu bari fu mel ni Londres am na ñu bari ñu ma fay téléphoné eh, Italie ñu bari ma fay téléphoné France noonu Amérique itam ñu bari su may xarit ak ñoo xamoon ñu bari ñoo xam ne bu ma fanaan dem ndekk ñu ngi suivre turus yi ak li ñu fiy jàngale ci bari bu guddee ñaari ñi ngi may téléphoné sama wëlër yi nekk foofu yëpp ak Belgique maa ngi leen di nuyu di leen ziyaare e di bég lool ci e dajawaat gi ma dajawaat ak yéen tem jaaree ci jumtukaay yi di leen xamal ne toujours maa ngi leen di bàyyi xel maa ngi gën a yeesal kóllëre gi nga xam ne moo doxoon suma diggante ak ñëpp ci yooyu xëy na léegi yàlla dafa dogal li may faral di ñëw foofu baareetut waaye ba tey it saa bu ma comme ma ne danaa ko def waaye nag dama ko daan defee yàlla dogal na loola moom léegi jot gi mayetu kon ñu ngi ñaan yàlla tawat ji nga xam ne moo daj àdduna si yàlla jëlee bu fi moom set wecc muy ci réew mi ak ci réew yëpp yàlla dindi mbas mi moom set wecc te yàlla yërëm ñi nga xam ne ñoo ci faatu ndax ñooñu moom war nañu sant yàlla ay suhadaa lañ ay shahid lañ ku faatu ci mbas mi moom shahid na kon ñooñ ñëpp ñu ngi leen di masawu ci loolu di ñaan yàlla suñu mbokk yi nekk ci bitim réew yëpp ni nga xamee ni ni la Cheikh Mouhamadul Muntaxa di leen fàttaliku di leen bàyyi xel saa su ne mi ngi bàyyi xel ñooñu xam yaakaar naa it ñoom ci seen bopp xam nañ ci dara kon ñi ngi leen di ñaanal yàlla di ñaanal suñu bopp yàlla may nu fanu gudd lool te musal nu ci mbas mi te ndigal yi ñuy digle sëriñ bi di ko def di ko digle yeneen koy gis sëriñ bi a ngi koy defal boppam ba noppi di ko digle kon nañ fexe ñun itam bu doon doon dara it ñu def ndigalal sëriñ bi raxasu beeg masque beeg bañ bàyyi jaxasoo bi ci mbooloo yu bari yeeg yooyu yëpp nañ ko fat dañ ko wattandiku loolu moo tax ngeen gis jataay yi nii demee nii nga xam ne nanguwuñ mbooloo mu bari nekk fi loolu lépp tabarakallah wattandiku rek moo tax ñu di ko def kon ñu ngi nuyu ñëpp ak ñi nekk ci biir réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ñëpp eh, ñu nu téléphoné ñu nu woo ñu nu woowut ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu